wax ñu bëri nag même ci biir parti bi am na ñoo xam ne lañ ko commenté xam nga le président de la république Macky Sall c'est le président de l'APR Alliance pour la République donc c'est un chef de parti donc aujourd'hui je pense que président su demee wax ne ñu toog mobiliser waat ñun ñëpp ñu préparer 2024 ça veut pas dire que c'est lui-même qui sera candidat mais en tant que chef de parti APR moom mi jiite ko am na droit wax troubam nga mobiliser leen waat ne leen préparé wu 2024 donc deux choix moo soit moom day nekk candidat soit xëy na mu am keneen comme ñuy proposé mais dama jàpp ne man en tant que responsable euh, APR may ñaan suñ camarade président de la république Macky Sall ne ko suñu souhait moom mooy mu nekk candidat moom en personne non loolu kay te par ailleurs leer na naa ngi ci te par ailleurs. aussi il faut pas que ñu teel a avancer aux besoins parce que président jox nañu rendez-vous incha allah le samedi. Mm-hmm. invité na euh, ñi nga xam ne ñoom la teewaloon ci dialogue bi pour euh, salle des banquets pour waxtaan ak askan bi ci décision yi nga xam ne moo untu ci biir rencontre boobu di am si biir rencontre bi amoon mu wax ak sénégalais donc tey su ma juumul Paris nee na leen mu ngi joxe rendez-vous incha allah dina waxtaan ak askan Sénégal tey dafa junj rek donc junj bi. mënoo cee sukkandiku. ñu pour wax ne waaw pour wax ne na. vidéo yi pour wax ne clair na. discours bi wax na ba ne na seen xel dal victoire bi dinañ ko am. en 2024 waaw mais c'est normal kon jàpp leen ne ndam li am nañ ko ba noppi. waaw c'est normal président su ko neexee donc il e je pense que am na droit nekk candidat. Hmm. parce que côté juridique bi moom waxatuñ ko. Euh, dégg nañ ko fan yee passé mu jàkkaarloo ak opposition ci dialogue bi ne leen nag su ngeen bëggul mu nekk candidat da ngeen ma koy ñaan ci njëkk ndax moo woote waxtaan. daa amul hmm. benn sujet tabou. Euh, su ngeen bëggee ñu waxtaanee troisième candidature bi sax pare naa pour waxtaan ko ak yéen moi je me dis que président nu mu demandé opposition pour ñaan ko ci njekk mu bañ a bokk parce que waxtaan la lu fay jógee ñun xamaguñ ko et je sais que samedi toutes les décisions président dina taxaw wax ko ñun Sénégal yëpp ñu ko dégg ko mais ñun en tant que apériste ñu dañu ñaan président de la république Macky ci njekk boobu ñu ngi ko koy ñaan ci njekk na fexe moom en tant que président Macky Sall euh, chef de l'APR mu bokk ci élection présidentielle 2024 yi ndax bokk ci élection yi dina tax moment bi Sénégal toll nga xam ne tey gis nañ benn opposition hasardeuse boo xam ne ñoo ngi nekk ci dëkk bi pour déstabiliser ko benn menace extraordinaire moo ngi am ci dëkk bi moom miin na administration bi war na mun a jàppale ci Séné war na mun a jàppale sénégalais yi et par ailleurs aussi ñu permettre ko li nga xam ne moom mooy plan Sénégal émergent buñ ko mottali donc pour le bien des Sénégalais. man loolu mooy man loolu mooy sama sama gis ñaan njekk moom dañ ko ci may circonstance atténuante jàpp ne da doon kaf rek. mais buñ ko bu fekkee ci dëgg ak ci si parce que waaw juridiquement ma yeggali allez-y ci ñaan si njëkk boobu moom mm-hmm. nañ ko kafee rek mais bu dee ci dëgg wax dëgg yàlla newuñ ci monarchie boo xamante ne président dañ ko war a ñaan ci njekk ndax day bàyyi wala du bàyyi ndax loolu moom xel mënu ko nangoo kon ñu may ko ko rek ne lu mu doon da doon détendre atmosphère faire bi rek mais nekkul ci fulaak wala ci dëgg la waxee si sénégalais yi ne leen da ngeen may ñaan ci njekk parce que lu ñuy ñaan ak lu ñuy mayante amu ci moo ñëwoon dagaan baatu askan wi ñu jox ko yaakaar naa bu paree dafay jox keneen mais du lu ñuy ñaanante ak moom waa man dama gis ne peut-être que vous avez mal compris peut-être président moom fan la waxee xam nga président Macky tey choix yam la moom mu nekk candidat wala mu bañ a nekk candidat tey Fada Abdou man su ma jugoon décidé ne man damay nekk candidat man Dieynaba képp koo xam ne am nga âge mot pour nekk candidat Sénégal kenn empêché wu la ko président candidature am du yow yaa koy daganal lu man maa koy daganal conseil constitutionnel moo koy daganal te suñ ci tollee président pour soo gisee mu ne dafay ñaanti njekk pour man la choix était de comme que opposition bi dañ ne woon président def na deux deux mandats warta def troisième candidature léegi foofu la waxee pour man ci ñoom par rapport à votre compréhension foofu la waxee ne leen ah su ngeen ma waxee ne bul bokk du bokk mais moom logiquement pour man juridiquement am na droit bokk parce que constitution Sénégal problème juridiquement ci candidat yi c'est ñi fi nekkoon wax dëgg yàlla te ñun ñëpp yaakaar naa kenn fàtteegu fi fàtte xaju fi mhm. euh, waxu troisième candidature réglé nañ ko depuis dem référendum 2016 moom président moo ne woon verrouillé na léegi constitution bi et que léegi deux mandats kenn dootu ko weesu. waaw mais juridiquement plus de deux mandats consécutifs. de cinq ans de de cinq ans. Fatou Abdou. ah amul Fatou Abdou di. dugal géew parce que ah, man moom. non amul dugal géew on va on va dire les choses sérieusement parce aujourd'hui waaw. juridique pour man ci troisième mandat au président de la République Macky Sall c'est un problème qui est déjà réglé. parce constitution bi may na président de la République vous dites que moom warul nekk candidat. Ah, moom am na droit. léegi ne tey di day nekk candidat wala du nekk candidat foo soo déggee sànq ma lay expliqué na la ñaan ci njëkk bu ñu koy ñaan ci njëkk boobu noonu. soo déggee mu wax ko c'est-à-dire que tey ba ñuy waxtaan ñoom ci seen biir euh, peut-être opposition bi mën ñëw waxtaan ne ko ah président kat ñun bëggoon nañ nga bàyyi dem noppale ko ci moom en ce moment il peut décider. da dire que ah comme ko bëggoon leen ma bokk man bokk ma. mais aujourd'hui mais aujourd'hui mais mais aujourd'hui dañ koy bàyyi nii. non non c'est-à-dire kàbbar juróom-ñaar c'est-à-dire que juridiquement man nee naa la jéem ba jéem ba man mhm. problème candidature am hmm? c'est déjà réglé. parce que conseil constitutionnel moom mooy décidé yow miy toog fii nii mun na wax ne président day bokk wala du bokk. comprendre nga parce que nekkul yaa ko décidé. conseil constitutionnel moom la amoon Côte d'Ivoire ak Guinée Barki Dembo Ndiaye bañ jàpp président conseil constitutionnel moom man mooy doon sama tontu si loolu kon. wax conseil constitutionnel moom mais pourquoi on s'active tout le temps ñun ñëpp ci. Euh, candidature du président de la république alors que nous même nous devons pas décider sur la candidature du président. lu koy valider conseil constitutionnel la président dina wax ak ñun samedi yàggatul. mais nañ xaar conseil constitutionnel décidé na président day mun a bokk wala munul bokk. Euh, en ce moment là bu boobaa su boobaa ñëpp ñu euh, juridique. Mhm. yow fan nga teg ne le président de la république Macky Sall a droit à une troisième candidature ci lan nga koy teg. waaw xam nga man du ma ma juriste. je suis pas juriste. donc je vais pas entrer dans les codes. man je suis gestionnaire de projet donc du diplomate consul honoraire là mais consulter nañ ay juristes yu bëri ci dëkk bi fii. ñu ñu xamal ne ay constitutionnaliste yu mag ci dëkk bi yu ñu xamal ne président de la république Macky Sall am na droit def deuxième quinquennat taxaw ne il n'a pas le hmm. droit de se présenter waaw moo tax ma ne moo tax ma ne lu xam nga lu ñu naan kenn du ko màcc te ñoragul euh, je pense que troisième candidature bi je pense que vague bu ñu ci def dafa bëri xam nga ñun Sénégal on est ouais, on est régi. parce que on a un par président des lois. parce que Dieynaba on a un oh, président on est régi par des lois. on a un président boo xam ne. Mhm. dañu ko tabb. Mhm. mu toog benn yoon toogaat ñaari yoon. Mhm. ñu bari jàpp ne constitution bi mayu ko pour mu sampat ndëndam une troisième fois. waaw mais mais loolu conseil constitutionnel bi waxu ko de 2001 yegg ci wax ko mooy on peut se baser que sur la parole du président de la république. mais la parole du président de la république Macky Sall nekkul parole juridique. mais xam nga parole am la parole du n'a rien de juridique. xam nga xam nga dëkk bi dafa am ay loi yu régir. il faut que ces lois là soient respectées. il pour nga mën a répondre ci question yi. allez-y alors euh, sunu dëkk bi ñu nekk muy Sénégal. ñun mm-hmm. dañu xam ay valeurs parce que dafa ñoo xam ne dañu ko fi mm-hmm. ñu jàpp ne. kilifa gu toll ni njiitu réew. Mm-hmm. le premier des sénégalais sa parole elle est très importante du sa kàddu sama kàddu. Mm-hmm. donc même mënuñu ko méngale constitution mais ñu jox ko cër bi mu moom. Mm-hmm. mooy moo wax sénégalais yi ne leen. je suis à mon deuxième et dernier mandat bindulu constitution bi. ne lii mooy bindulu li ma ci def mooy. bi may dugg mooy sama deuxième et dernier mandat. Mhm. am na ñoo xam ne mënuñoo jàng tubaab mënuñoo liir li nekk ci référendum bi li ñu mën a dégg mooy. Mhm. kaddu président de la république ñooñu kaddu googu ñu déggoon da ngeen la bëgg a laaj tey jii nii euh, Fatou la bëgg ndax parole président de la république ak tey jii nii suñu loi et juridiction yu conseil constitutionnel bi teg. les deux sont ñun ban lañ ci war topp ñun. les deux ci non non dama la poser une question très simple. je vous ai xam nga tey wax yomb na je pense que Wade est tombé dans ce même piège et beaucoup d'hommes politiques fii politiciens ñu fi wax waxeet bëri na mënuñu leen a compter donc vous pouvez pas toujours insister non non non c'est pas une question de dédire wala bu mm. dédire xam nga dama la poser benn question bu simple dama la président non non waaw président de la République Macky Sall tey ndax moom kat doom la ñu war a téye ne moom mooy suñu juridiction wu Sénégal mooy loi wu conseil constitutionnel wala décision juridique bu conseil constitutionnel la ñu war a jàpp man dama lay delloo ci lenn euh, mooy laa la waxaat sànq aujourd'hui kon yéen respecté le président ndax le président de la république da ngeen koy jël di ko néewal. non xam nga président président bi boppam euh, loi da koo tënk Macky Sall loi da koo tënk c'est pas une question de respect du président de la république président fekkoon na lu ko neex lay def wala lu mu wax lu ko saf mu dogalee ko wala mu defee ko kon yaakaar naa Sénégal dictature la ñuy dund président si boppam loi da koo tënk su waxee dara xëy na mbëbëtam la mais juridiction wu Sénégal constitution wu Sénégal dafa am nu mu tëddee ñun sénégalais yi en majorité les politiciens son minimes dans ce pays ah defuñu sax 500 000 personnes donc il faut que ñuy sóoraale aussi ñi nga xam ne ñoo voté ba président toog fii il faut que ñoom tamit bàyyi leen seen liberté bopp ñu a choisir en aisance d'après décision conseil constitutionnel kan la ñuy àndal ci élection présidentielle je pense que ce choix là on doit le laisser au Sénégalais parce que man damay wax tout le temps